Fatima John. Mm-hmm. Euh, une sérère. Mm-hmm. loolu moom ñemewu ma si ba nga wax. Mm. j'ai tout partagé. Mm-hmm. live boo xam ne am na nekk en rapport ak affaire bi rek partagé naa la. depuis deux jours. parce que a vécu Fatima la le même Fatima lu mu dund man moom laa dund. Mm. kon maa gën a placé pour wax si affaire Fatima. kontaan loolu nag bi ma gisee jigéen ñi commencé na ñoo sob waaw dafa fekk ku tudd Ndella Madior Diouf daaw moo taal live am tasaare àddina gis nga kaawu Fatima Dione bi fépp la si sa famille mm-hmm. y a des dans toutes les familles mm-hmm. viol suivi de grossesse la di mm-hmm. waaw bii nag bi si gën a graaw on a affaire apparemment à une vierge qui a été violée pendant son sommeil et qui s'est rendu compte le matin au réveil des des des des des, des de ventre mm. et des maux vaginaux c'est grave mi tuur ndox di saw mm. mu lakk mu ne waaw man man j'étais pas comme ça hier mm-hmm. il a quelque chose il s'est passé dans cette nuit ah on m'a on d'accord c'est que ça mu foog ne fa la yem dégg naa ne da nga foog ne woon fibrome la parce que suñu demee ba xalaat fibrome ça veut dire que elle n'a jamais eu de rapport sexuel. d'accord après affaire bi di yéeg di yéeg di yéeg parce que pour mu yéeg 4 5 mois ah après dootu ko mën a ñàkk que parfois si on des avortements euh, des avortements autorisés ou non autorisés si on le fait. Mmh. médicaux ou pas c'est avant trois mois. au-delà de 3 mois il y a des risques. Certainement, c'est ce qui l'a poussée à garder l'enfant. Parce qu'ils se sont rendus compte tardivement qu'elle était, qu'elle était enceinte. Mm -hmm. Donc, tardivement qu'elle était enceinte, ndeysaan su demee ba am doom bu juddu ça veut dire que mun na ko làkkatu na ba xale bi juddu. ndeysaan làkkatu na ba xale bi juddu xale bi di màgg am na 5 mois la ñu wax. waaw kon mu ne xamul sa kan moo ko ju ko ko ëmbal loolu moo daw yaram ci affaire bi. Mm-hmm. xamul ku ko ëmbal. Mm-hmm. ça veut dire que il faut chercher. parmi les personnes qui étaient dans cette soirée ou bien de je sais pas que ce qui s'est passé parce que elle est confuse ba xamul sa luy xew xamul sa ban góor moo dugg si néegam bu muy tëdd nelaw xamul et cetera ou bien il y a eu des épisodes qui ont été omis volontairement on sait pas mm-hmm. en tout cas que il y a eu quelque part pas forcément pénétration pas forcément pénétration parce qu'un éjaculateur précoce qui déverse du sperme à l'entrée du vagin tu es enceinte mm-hmm. loolu ba tey viol la ça peut être un viol. Okay. Parce que tu as frôlé, tu as failli, euh, failli euh, pénétrer, mais comme tu es un éjaculateur précoce, et tu le déverses l'entrée, mhm. et puis il va pas s'en rendre compte. Mhm. Parce que la pénétration n'a pas été euh, brutale et, et profonde. Mhm. si elle est profonde, tu peux réveiller. ku doon sàcc la si buntu bala yam soo fa euh, de figure boobu nag la mën a de figure boobu la mën a maintenant bon. euh, il faut faire des tests d'ADN un mmh. peu mhm. partout. Il faut faire des tests d'ADN pour savoir euh, parmi les hommes qui étaient là-bas. Ça va être un peu compliqué. Mmh. Elle a eu beaucoup de courage d'avoir euh, gardé son enfant. Mmh. Elle a gardé son enfant durant cinq mois. Allez, que ce soit issu d'un viol ou pas, il faut apprendre à l'aimer. Mhm. Voilà moom phase boobu la toll. Mhm. dafa war a bëgg doomam voilà. comme que téye na ko ba 5 mois donc elle n'a pas pensé à l'adoption donc na mhm. téye bëgg doomam grandir avec. te dégg nañu aussi dégg nañu aussi ñenn ñu naan waaye Fatima pourquoi elle est restée temps bi yëpp sans pour autant dénoncer lu tax boobu ba léegi waxul. alors que moom génn na. peut-être bëggoon na ko xëy na gënalu ko mu mu mu wax ko ci réseau yi euh, wax information ba ñëpp yëg ko mais nee na mënul toog ci coin am di dégg ak di gis ñu koy jàppale. ça serait lache mu toog moom ci ci ci ci wetam mm-hmm. te du wax dara donc bu mu déggee nit ñi di ko jàppale mu am ay soutien ñoo xamante ne xamu leen loolu moo ko poussé à ce que mu wax donc am na ñoo xamante ne aussi il faut ñu bàyyi bu liy amee ñu naan waaw lu tax waxu ko bu yàgg lu tax euh, réagirul bu yàgg lu tax mu xaar ba lii am mu do moi j'ai eu ce problème il y a 27 ans voilà les gens m'ont reproché pourquoi ma xaar 27 ans doo ko wax mm-hmm. parce les pros sont comment attaquer dans mes lives di sulli loo xam ne fàtte nañ ko sax. Mhm. fàtte nañ ko di ko sulli di bind saadakan saadakan saadakan Prosonko ils sont très agressifs très agressifs. ah ñoo ko sulli ko sulli loolu laa jot ak ñoom di. Ah. xeex bi nu mu safee woon loolu laa jot ak moom ñoo ko sulli di ko sulli di ko sulli ko sulli. bu ma si maaree. ma ne acca kaay naa wax affaire bi nu mu demee. bu ma si maaree j'ai fait un live y'en parce que toog naa 27 ans muñ sama muñ. fàtte sax que problème bi am na. positiver ba xale bi nangu espace boobu je me suis chamaillée seulement avec ton papa. mu ne je vais vous réconcilier. elle a grandi Sarah tu connais bien Sarah. comme ça. maintenant si les pros sont ko dugg sama di may de ngeen saboté. Mm-hmm. ah à un certain moment donné il faut expliquer à tout le monde ce qui se passe. et j'ai expliqué à tout le monde ce qui se passait. loolu moo dal dafa Fatima aussi. mais écoute c'est la même chose c'est des mm. refus de paternité nii daw. Mm. man topp ma derrière ce monsieur. je suis je suis restée di xaar mu ñëw régler problème bi. Mm-hmm. et ça a pris 27 ans. parce que j'étais pas cas social je pouvais prendre en charge ma fille qui ne manque absolument de rien du tout ku ko gis bëgg ko dégg nga mm-hmm. et je n'ai jamais tapé à la porte de ce monsieur. Mm-hmm. famille bu tombé si famille bu digne à un certain moment donné, il faut régler ces problèmes pour les autres, mais pas pour moi. Mm -hmm. Les autres qui n'ont pas de moyens pour faire face, parce que quand on garde un enfant, il faut des moyens. bi borom bi dafa cher. couche bi dafa cher. ndox yi dafa cher. ah hôpital bi dafa cher. Mhm. scolarité bi dafa cher ak yére yi xale yi day màgg. mais les goûters. les goûters tout est cher. de garder son de l'argent. Mm fii gàcce ngaalaama jigéen bu garder doom mhm. te xale c'est du bonheur mhm. un enfant il faut s'en occuper que le père soit là ou bien qu'il ait pris la fuite mhm. il faut s'en occuper su màggee mu mun a toppatoo tamit doomam et ça c'est très important et la vie continue mais il faut respecter les gens ñi nga xam ne seen dañuy juddu rek seen seen seen seen seen seen papa faatu wala seen yaay faatu ñooñu ñu ngi dund ba léegi C'est pas parce que l'enfant n'a pas, ne connaît pas son père que la, vie, la, terre va arrêter de tourner. Mm. La terre tourne. La terre tourne. ñu dund dund mu neex di lekk suñu kii bu joni sap. ba mun laa sarax xaalis. def suñu njarum soow mais bu saf sap. bu faut faire comme moi. yëngulul ma ko sama yaram. mais politique pour régler problème yi ndax bu ma julee doom bu weex taal métis bu weex taal ñu ne ma kii loo ko jox nationalité. 20 mhm. millions laa déposé caution. Mhm. participer si législative 2012 fexe ba tous les sénégalais. Mhm. fexe ba tous les sénégalais donc euh, am euh, mun a jox nationalité seen doom. dans la vie il faut engager des combats. mais est-ce que am na. gagné combat boobu fexe ba Sénégal yëpp sénégalais yëpp mën a jox seen doom yi nga xam ne dangay juddu à l'étranger de père étranger. Hmm. loolu ndam la. Hmm. beneen bi nag mooy. fexe ba bépp góor bu biiral. Hmm. test d'ADN. par force par force par force boobu par force. loolu mooy sama combat personnel. kon léegi su ma yeewoon ndeysaan euh, gis euh, Fatima. li ma ko mën a conseil à distance mooy du gàcce. du gàcce beaucoup de mérite et beaucoup de respect à cette à cette petite beaucoup de respect qu'il y a eu dans le silence gardé ba accoucher accoucher dafa métti. ah bah oui Sophie. accoucher dafa métti. totalement su nekkee sama genre ñoom dañuy opter pour césarienne. Mhm. mais accoucher par voie basse teemuloo rapport sexuel dafa métti. Mhm. kon sant yàlla bu mu judo ba faatuwul doomam nekk en pleine forme parce que ku juddu ba nekk 5 mois ça veut dire que bon mi ngi euh, nekk en pleine forme kon. li si des rek mooy jigéen yëpp ni ngi manqueloo comme ni ma gis ñu commencé manqueloo parce que man kenn sotleewu ma comme ni ngi sotlelee Fatima. Mm-hmm. man de la maa joor kenn sotleewu ma lu fi xew si diggante bi damaa ñeme wax ba wax ba gars yi commencé rusatuñu wax génn wax ça crée ça déclenché euh, rus naa wax léegi nit yi dañuy wax. waaw je pense que loolu moom joué nga ci lu bari. bu bari bu bari bari. Mhm. bu bari damaa wax foo xam ne kenn lu tax ma arrêté. dëgg la mais gars yaa ngi doon dof di. Mhm. c'est dans toutes mhm. saa yi ma taalee sama caméra bi rek góor yi taw. c'est vrai. tiit parce que man dama mën a attaqué. te affaire bi dafa nekk dans toutes les familles rek jeexal na wax. c'est vrai. dans toutes les familles jeexal na wax c'est partout toutes les familles sans exception. kon loolu soo taalee sa live day indi benn stress boo xam ne moo tax ma ne maa ngi jégalu. xam nga foo ne maa ngi jégalu gars yi foog ne damaa daw reculer. Mhm. c'est c'est mal me connaître lu tax may daw di reculer. maa ngi jégalu parce que keroog jooju dama créer benn pression familiale au niveau de toutes les familles sénégalaises am na ñoo xam dañoo daw reconnaître seen doom. Mhm. am nañu si saa si. c'est vrai si saa si. balaa ñu leen di tudd. dëgg la parce que dama jëloon décision di régler cas par cas. sama bos wax naa ko pare yeneen yi cas par cas. gars yi di woote di wax cas par cas di woote cas par cas cas par Uh-huh. nar a nekk dans le coma ma ne maa ngi jéggul uh-huh. maanaam xeex di uh-huh. vingt sept ans laa xeex kon mun naa si doole yeneen weer ak yeneen at ndànk ndànk ba keroog muy sot xam fan koy sottee Macky Sall si boppam mooy introduire loi bi à point de l'Assemblée nationale nii nga xam ne dañu demoon defar si loi bi à l'Assemblée nationale fexe ba ne on n'impose pas la paternité au Sénégal loolu am Sénégal dañ koy dindi par force soo tooñoon mag yi mag yi am doom mhm. mag yi mënu la topp loolu lañ wax moo am Sénégal mhm. du dëgg du yoon mag yi dana woon a topp daf test d'ADN mi nga positif mu xam ne yow yaa ko jur danga koy jox sa sant dundal ko Sénégal xam nga la moo am donc su la neexee nga bañ ko jox sa sant mais danga koy dundal rek je vais reprendre les lives sur les de paternité dès mhm. ce soir à 17h je l'ai déjà annoncé ça permettra cette personne ndeysaan qui m'avait appelé quand je live à Saly mu ne ma bu ñu abandonné. Mhm. force bi nga am di wax sans complexe ñun amuñu force boobu. Mhm. ne nous abandonne pas. Mhm. pour cette fille je savais que j'allais reprendre mais xaw ma parce que quand j'ai fait ce live il y avait 5000 en temps donc euh, après j'étais fatiguée. et après il fallait un certain moment donné calmer le jeu voilà calmer le jeu parce que xeex dafay am day dent de la y a boo xam da ngay tàngam sap-sap mhm. ak boo xam da ngay dëgg bal da ngay bàyyi mu sedd da ngay dëgg bàyyi mu sedd mhm. bàyyi mu sedd ça veut pas dire reculer waaw loi bi à l'Assemblée nationale dinañ ko introduire changer ko à la suite d'une pétition mhm. fii ku fi biiral di nga en charge mooy yoon loolu mooy dëgg waaw te jigéen yëpp dinañ si jàmm ñu dugal ko Assemblée nationale réglé ko